asalaamaaleykum euh, mbokk yi asalaamaaleykum waa Ourossogui asalaamaaleykum waa Sénégal euh, tey mbégte bu mag la mooy waa Ourossogui association boo xam ne mu ngi tudd association di Bamtare Bamtare mooy yokkute si olof moom la ñu tuddee Bamtare ci pulaar mooy yokkute si olof ñu ngi def fii nii ay affaire yu doy waar yoo xam ni yu jëm si affaire développement. ndaxte que ñëpp xam nañu yokkute weesuwul jëmbat ay garab ndaxte que garab dafa bari njëriñ gis nañ ne kii sax su feebaree dañ ne jox leen ko garabam mu naan kon xam ngeen garab dafa bari njëriñ fii nag ñii association Bamtare bii nii depuis 2019 ba léegi ñu ngi def fii si Ourossogui ay des journées de reboisement gis nañu vraiment ñu ngi jëmbat ay garab si lié de espace yohamantini, xamanteni espace yu nek ci biir dëkk bi si école yi si dispensaire yi si euh, dëkk bi nga xamanteni aussi moy bayal yu mag yi ñu ngi si def ay garab euh, man en tant que président association Bamtare bo xamanteni euh, lu jëm si affaire environnement damay wo nguur gi pour ñu jappalé ñu si ndimbal pour lu jëm si garab yi ndax tek sak année dañuy dem si eaux et yi ñu may ñu ay garab waaye garab yi ñu soxla duñ ko mën a jot dañu dem mujj dem jënd dañu bëgg ñu dimbali ñu pour ñu am pépinière aussi dañu bëgg pour autorité yi ñu dimbali ñu pour entretien garab yi ndaxte garab boo ko jëmbatee ba pare da ngaa war a am suivi bi nga am ay oto citerne yoo xamante ni nga mun si jaaraat pour di ko arroser ndaxte que garab ndox moo koy dundal fii aussi si commune de Ourossogui dañu jege frontière bi trop ndaxte ko fi ñepp xam nañu dañu jégué désert bi comme ko nak président de la république ñom am nañu benn projet boo xamanteni moy le grand mirail vert ñun aussi soxla nañu suñu àll ba ak suñu bir dëkk ba ñu ñu dimbali ñu ci jëmbat ay garab waye nak aussi di sante bu baaxa baax wa association Bamtare ndaxte ko ñu nekk si àll ba ak ñu nekk fi ci bir dëkk ba ñoy dajal seen xaaliss sak année ñuy jëmbat ay garab ñu jënd ay matériel yo xam ñu si and yépp lool aussi ñu ngi ñaan autorité yi nga xam ñoo ñak ci biir dëkk ba maire de la commune bi ak euh, conseil municipal yi ak képp ko xamante so loxo jonne ci ginaaw nga ñu dimbali parce que association bi ay volontaire lañu kenn ñu nyu suñu dëkk ñun ñoo mënu défaral suñu bop dëkk bi kon man damay ñaan rek jeune yi ak damay ñaan aussi ASC yi ñuy def ci sen programme yi ay de programme reboisement ay def ci programme ay set setal ñu xam ne dëkk bi daal ñoo ko mën a defaral suñu bopp ndax que fii bayal bu ñu taxaw nii fii amul woon ay garab waaye association bamtaare bi ñoom ñoo taxaw def fii yëpp jëmbat fii yëpp ay garab te bayal yu nekk fii ci biir dëkk bi yu bari école yi ak dispensaires yi ak yenn jàkk yi ak yenn jumaa yi yëpp def nañ si ay garab aussi si buntu armeel ba def nañ fa ay garab mais du ñuy ñaan daal nguur gi ñu mën a jàppale association bii nii si ay subvention parce que chaque année ñu ngi génne ay subvention yoo xamante ni yu jëm ci ay affaire yu yokkute kon comme ko wa dëkk ba ñu ngi def ben association ba xam ne lu jëm ci développement dañu bëgg suñuy sédélé subvention yi ñu siy sédd waa Bamtare ndaxte ñu ngi fi dajalé chaque année ay millions ñukoy koy ci si dëkk ba kon dañu né autorité dëkk bi suñuy sédélé dañ ci bëgg ñu ci sédd waa Bamtare pour ñu mëna topato bu baax lu ñuy def vraiment di sant bu baaxa baax association Bamtare bi yépp surtout ñu nekk ci bitim réew ñu ngi commencé 2019 te ñaan nañu yàlla li ñuy def nii dañuy ñaan ba suñu doom yi ñëw àggale liggéey bi waaye di woon toujours rek di woote autorités yi nañ si jàpp seen loxo bu baax a baax ndaxte lu ñu fi def nii dafa ànd ak tey si suñu cadre vie parce que ñëpp tey ñu ngi dëgg nit ñi di ne ay changement climatique xam nañu tey addina bi tey nu mu mel nii tey am na lu bari lu jëm si ay ngelaw lu jëm si ay tàngaay ñàkk am ay garab moo ko waral kon dañuy ñaan daal dëkk bi yëpp Sénégal yëpp ñuy jëmbat ay garab autorité yi ñuy gënné ay moyens pour lu jëm ci environnement. li ñuy def ni c'est une goutte d'eau boo xam dañ koy sanni ci rek ah, ah, c'est pas signifiant xamna naa dañu am suñu volonté rek am bëgg-bëgg am amour ci suñu ville motax ñukoy def mais on n'a pas les moyens le moyen de suivi parce que bo jëmbaté garab il faut mu am suivi il faut nga am garab yi ngay yo xamné ne koy jëmbat garab yi amuñu ko dañuy remercier quand même aux yeux forêt parce que lu mu bon bon dinañu jox ay garab mais du doy on est obligé nit ñi di cotiser à gauche à droite pour ñu mën am euh, lu lu doy tuuti ñu yok ci ay garab té buñ ci ay garab tamit on a besoin de euh, lo xamné c'est des protections moy ay grillage moy ay ay fer xam nga donc yooyu dañ koy soxla ñun amuñu moyen bobu dañuy def rek li ñu mën donc ça fait quatre ans nak ñu ngi sant yalla di sant population bi yëpp di sant waa Ourossogui ñu nek local ak ñu diaspora ils font des efforts yo xamné c'est extraordinaire ils font tout pour nous parce que dañu xamné tamit ñun dañuy def loo xam ne ñeneen ñoo ko waroon def mooy état parce que lii ça euh, ci compétence su état la bokk donc état defu ko ñun ñu ngi koy def. mooy dañu dimbali si matériel maa ñu dimbali si ay agents yoo xam ni physiquement la ñu taxaw mais lu jëm si ndimbal boo xam ni mooy booy jógee si ñoom ñun gisuñu ko maire bi nag en tant que citoyen moom su ñuy def day jël si poosam dimbaluñu mais gisuñu benn moyen bu jóge si état bi suñu koy def ñu ngi def ay lettres ñu adressé ko gouverneur. adresse au préfet, l'adresse des autorités de la ville, mais qui sont nous de là, c'est ce que nous